Bienvenue sur Salam Vision. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax a di leen jox seen wàccuwaay euh, ñu ñëwoon fii ci kaddu askan bi tey dalal fii Ousseynou Ndiaye ak Zokama bëggoon waxtaane actualité bi nekk si dëkk bi waaw ndax ku ne am na si wàll dëkk bi moom ñun ñëpp ay patriote lañ war nañ cee wax ku ne wax xalaatam lu indi jàmm lu xaw a sensibiliser jeunes yi daal Ousseynou ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay ci dalal bi ngeen bi ngeen ma dalal lii xew ci réew mi rek dafa jar a waxtaanee. waaw léegi rek damay nuyoo ba pare ñu doog dugg ci question yi. dëgg la monsieur ñu lay nuyu di la dalal fii ci Salam Vision. waaw maa leen di fay monsieur Sarr di nuyu sama mbokk mi sama grand bi euh, Ousseynou. voilà di nuyu waa salaam Vision. Euh, di nuyu ñëpp ñi nga xam ne. mbokk mbokku internet ñi nga xam ne vraiment euh, ñoom ñoo ñuy suivre voilà di ñu bàyyi xel maa ngi nuyu ñëpp daal. léegi ñu amoon actualité muy euh, Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñoom ñëpp ñu nekk ay sénégalais kenn waru cee loru waaye askan bi tamit waruñu cee loru ñu bëggoon cee waxtaan euh, parce que defe naa comme ni ma ko waxee si njëlbeen bi rek ku ne am na droit wax si ñu lay laaj yow Ousseynou Euh, lan moo ci sa xalaat euh, ba dossier bi egg si fii fa mu tàmbale ba mu fi mu yegg si nii lan moo ci xalaat. waaw sama xalaat euh, du leen lu dul réew dañ koy lépp dañ koy teg ci yoon. bu fekkee dañoo bëgg am fu nu yegg. moom ñu bëgg a réew yi am doole. Mhm. ndax waruñu mhm. tàggat xale bu jigéen mhm. ci anam boo xam ni du anam bu sell. di ko tàggat pour muy. yàq waxuma la tëj nit du doon tëj benn doomu aadama rek sax dañuy wax waaye lu mu yàq ci réew moo bari euh, kenn rafetlu ko mhm. te nekkul loo xam ni nit ñun ay borom xel la mhm. tey ji bu doon ci xal bu doon euh, cas mhm. ko waxee dinañ xam luy dëgg lu dëgg waaye li nekk na loo xam ni kenn rafetlu ko du nu nit gëm lu àdduna bi yëpp waxuma la Sénégal waa ba Europe xam nañ ni du lu am duñ nit euh, Adji Sarr lu tax boobaak léegi bu nekkoon lu am Adji Sarr ay mbokkam dina génn wax mm-hmm. moom dina génn wax waaye koo xam dafa làqu ça veut dire am na lu ciy laxasu réew rek du doxee noonu mm-hmm. réew du doxee doxin bu ñàkk sell boobu mm-hmm. Adji Sarr deful loo xam ni lu rafet la bu toogee wéet dina xam ni def na musiba te musiba xajul ci fen ci àdduna te lii wax dëgg yàlla rafet wuñ ko Adji Sarr li mu def Sonko rek wax dëgg yàlla nit kese la tamit xelu nit ni ni ni ni ñuy doxee lay doxee malgré am na capa am na am na grandeur boo xam am na foo xam niveau boo xam toll na fa am na waaye rek nit la de warul dem maase woo war na dem maase war na dem sax laa jàpp waaye rek nit warul laxas waru waruñu ko waruñu koy tegal ndëgg sërëx boo xam ne dina ci teg tànkam di surux ndax adversaire président bi nekk ci réew mi li muy def ba ba mu toogee léegi kuy adversaire am dina la mu tegal ndëgg sërëx ba nga teg ci surux waaye ñun taxaw nañ foo xam ne jamono jii bu doon Macky Sall opposant yëpp danoo dem ànd ak moom benn ganaar jógee fële samp mm-hmm. population Sénégal dinañ ànd ak ganaar googu fotel ko ndax Macky Sall na jàpp ni réew mii du réew moo xam ni papaam ci papaam la ko donnee pour nekk ci président wala yaayam walla benn mboxam réew mi dañ ko bokk li tax ñu génn rek di di di di yëngal di yëngal nii lépp nekk ci benn cadre bu dul teguñu ko ci yoon loolu laa amoon loo xam ni naa ko wax ci côté aji Sarr li mu def du dëgg du yoon mm-hmm. waaw du dëgg du yoon mais am na ak ak yelleefam Adji Sarr yéene wuñ ko viol Ousmane Sonko yéene wuñ ko kaso. waaw ndax ñoom ñëpp ay sénégalais lañ mais comme mbir am na euh, mu ngi ci yi yoon yàlla rek a xam. mais xam nga boo gisee li njëkk a li wàllu yoonu Sénégal kenn warootu leen. Hmm. ndax euh, tant que nomination jógewu fi. Hmm. ñuy nommer nit par décret décret rek li maam yii du fi jóge. Hmm. il faut la changer. doxalin bi. doxalin bi ñu koy changé mooy lépp loo xam gis nga dama su la lee ma yow su ma la leeree ni. maa la teg fii nga toog li ma bëgg ngay def. loolu tant que jëlee mu bët ci assemblée national tant que jëlewu fa parti yi di nan fa teg ñoo xam ni dañuy nekk ay ñoo ñu ñu farul fenn. ñoo xam ni dëgg rek ak bëgg réew mi leen fa tax a toog waaye tant ñu ngi def ay nomination tey jii li li président bëgg ngay def général bi démissionné dañ ko teg lu loo xam ne attanu ko moo tax mu arrière. tey jii am na ku njëkk a jox dossier yi da ko da ko ko ko teg mu diis mu delloo ko xam ne attanu ko réew mi rek nañ ko teg ci yoonu teg ci yoon boo teg ci yoon bi mooy justice sénéral tant ko loolu mu ngi am lu tax ñu wax Macky Sall mun na parce que ñoom ñooñu ay nommé ñii. fan leen teg nomination ku ci bañ ñu lay def loo dinañ lay dañ lay sàng sànni ay pongoli mi wala ñu sànni la ci région yi nomination est-ce que newul loolu réew mi noonu la war a doxee mais réew mi moo réew mi loolu yàgg ñoom il faut la ñu gis nga justice tant que indépendant ah li fi xew du fi jóge tey jii koo bëgg a tëj di ko tëj tey jii fekkee tey yow sa liggéey bi danga la ñor bu fekkee moom kese moo la ñor tey jii kenn du la def loolu lii wala ñu lay def loolu laa ndax parce que lii da nga da nga taxaw waat ne nii nga koy doxalee kon ci loolu doo ci jógee te doomu aadama gis nga ñii ñii képp ko fi àtte lu mel nii bu projet xarit waat bi wala beneen projet bu mu mënti doon boo boo boo boo defee li mu bëgg dañuy sa compte dañ koy gën a gonfler tamit dañ lay gën a dañ lay gën a dëgëral fi nga nekk te yooyu tant que jógewu fi réew mi du dox réew mi nag réew dañ koy teg ci yoon justice bi mën a dox ci yoon. waaw loolu daal laa amoon ci côté justice ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal dégg nañ la euh, di dalal monsieur Kama euh, di la laaj sa xalaat ci actualité bi ak réew mi fi mu toll nii. Euh, merci beaucoup déglu naa question bi am na solo trop hmm. d'ailleurs actualité la et fi ñu toll nii sax dama ne. actualité boo xam ne képp bépp Sénégalais conscient da cee war a wax. Hmm. c'est-à-dire ñi nga xam ne dañoo nekk porteur de voie dañ cee war a sànni ay kàddu voilà ñi nga xam ne vraiment am nañ impact seen wax am na impact ci société bi waruñoo noppi même suñuy wax ci suuf sax nañ wax ci kaw ñëpp dégg leen parce que du yoon Sénégal dem ba tollu fii nii mu tollu tey ngay wax ci suuf da nga war a yëkkati sa baat ñëpp dégg la euh, ñu dellu si ci mbiru Adji Sarr Sonko man au début ci sama bopp laay wax de dama naan waxi politicien la man duma ci dugal sama baaraam. duma ci teg tànk. parce que waxi politicien la. loolu laa doon wax au début. mais dem nañ ba mbir mi toll foo xam ne vraiment dafa jéggi euh, vraiment dafa jéggi li nga xam ne ñun moom lañ bëggoon euh, mu yem fa. yematu fa dafa jéggi suñu njort. parce que suñ sañoon tey loolu noonu mu doon waxtaan boo xam ne euh, dañ koy wax. mu yem fi mu war a yem mais yematu fa problème mu sénégalais ci boppam mooy lan mooy que ne day am problème bu ndaw mais da koy yëkkati ba mu ëpp ko doole da koy yëkkati ba mu ëpp ko doole aji saar lii la wax kii nii ak kii xaw ma lan moo ma violé xaw ma genre mu porté plainte contre x parce que déjà euh, li ma doon wax sànq rek si t'as les informations su fekkee informé wuñ la bu baax li ngay wax dañ koy seetaat surtout dañ ci bàyyi xel mm-hmm. mais ci li ñu war a mën a sukkandiku mooy li nga xam ne jot nañ ko mm-hmm. information yi nga xam ne moom mooy daw mm-hmm. te liy daw mooy euh, Adji Sarr moom lañ violé jàpp nañ Sonko tëj nañ ko avant ñu koy tëj na daan nañ ko yeneen i daan trouble à l'ordre public ak yeneen yoo xam ne vraiment euh, nee nañ moo ko def dossier Adji bi su ma sukkandikoo ci Euh, euh, info yi. Mhm. déjà dossier boo xam ne bokkul ak li tax ñu téye ko foofu noonu. waaw d'après li ñu wax. Mhm. mais loolu noonu yëpp dañuy dellu soit rek man ci li may wax chaque jour mooy lan la jeunesse. Mhm. Macky silence am dafa dafa dafa ëpp. day lor nit ñi. dafa war a wax ci kaw lan même su fekkee il est surchargé mais son peuple passe avant tout parce que nañ ko waxte dee euh, xale yaa ngi dee ci lan ci lan ci ay manifestation manifestation lu ko waral tout est euh, lépp ci base politique mais Macky wax na nee na yu suufe yi yooyu yu suufe yooyu du ci Euh, dugal loxoom dossier bi yoonam néew ci. dëgguma la mais nekkatul dossier bu suufee. Mhm. dans la mesure où. Mhm. ñëpp jot nañ ci ay bakkan ay bakkan rot nañ ci. Mhm. te ay ndaw. li tax mu gën a métti li tax jeunes yi gën a révolté wu parce que ku nekk am nga looy bañ. boo demee ba sës boo dul woon màtte di nga màtte foofu. parce que c'est c'est juste pour se révolter. mais foofu foofu dogguma la est-ce que jotul ñu sensibiliser ndaw ñi. ñu ñëw si beneen manière bu bokkul ak bi ñu indi nii. côté boobu noonu. waaw ma la du ma la ne déedéet de. Mhm. bien vrai dañoo war a sensibiliser les jeunes. comment. Mhm. mais sensibilisation boobu noonu ñuy wax. waaw on tout le temps tout le temps tout temps mais nekk dafa nekkul loo xam dañ koy wax rek cent pour cent aussi ñu jëfee ko. dafa dafa nekk yoon. Mhm. boo ne comment sensibiliser les jeunes nga trouver benn solution. cest à sensibilisation bi de ànd ak solution bi. comment euh, yow yaa ngi yeewoo ci quartier mhm. sa quartier par exemple yow yaa ngi quartier bi man maa ngi quartier ba ca topp mhm. mais ku nekk sa quartier fees na dell ak ay jeunes essaye essaye nga regrouper jeunes yooyu noonu ci benn association mhm. ngeen di def euh, ay débat sur la bi le développement personnel mais jeunes yooyu noonu dinañ dem ba xam ne laa yoon bi ma jaaroon yow boo xoolee ci vidéo yi am na jeunes yoo xam ne sànni nañu xeer jàmmarloog woy takkadeer yi policiers yi ba dem di leen accolade di nuyande ak ñoom est-ce que bu njëkkee woon loolu sànnante xeer ak lacrymogène dina am. mooy li ma lay wax maa ngi ñëw bu ñu demee ba nga yi association yooyu ngeen di def ay formation sur le développement personnel. Mm-hmm. la citoyenneté. Mm-hmm. mooy loo xam ne vraiment nit ki day impliqué wu dans la gestion de la de sa commune. Mm-hmm. mais du du du ko du ko yàqal dara du offensé kenn mhm. te dina def li nga xam ne moo ko war parce que ci droit am la nekk mhm. jeune boobu noonu il est lii nii man maa ko war a def mhm. te su ma ko defee nii dina doon lu rafet te du ma gaañ kenn te dinaa am li ma bëgg te dina jaar yoon surtout jeune boobu est-ce que dina génn ci mbedd mi di xaañante ay xeer jeune boobu bu fekkee yaakaaru kër la ce que moom dina génn ci mbedd mi di xaañante xeer euh, étant conscient que man yaakaaru euh, famille la mais jeunes yi nga xam ne dañuy génn di dem di xaañante ay xeer liñ leen di wax mooy que lan booy dem kat bay xaañante bay bay bay xaañante ay xeer yow kan nga koy xaañ mais c'est ton frère c'est sa frère bi nga xam ne moom mooy policier moom nga fekk foofu moom nga jël xeer bi xaañ ko ko moom mu delloo la recueillement je ne sais pas quelque chose du genre mais am na échange entre vous et pourtant man su ma génn tase ak sama frère ci ci ci ci manifestation bi. il va me dire automatiquement eh kër ga. su fekkee man je suis conscient et je suis jeune je vais ok parce que su ma jàmmaarlooy ak moom na ma gaañ wala ma gaañ ko. wala mu ñàkk bakkanam wala ma ñàkk sama bakkan. c'est-à-dire boo nekkee jeune. il faut toujours utiliser sax à la place des muscles. il faut nga utiliser sax xel à la place des muscles. Euh, politique la c'est vrai. mais on est là aussi pour défendre notre démocratie. Mm-hmm. dama ko scinder en trois groupes. Mm-hmm. cest à manifestation yi di xew. Mm-hmm. dama ko xaaj ci ñetti pàcc. pàcc bu nekk am na titre bu mu yor. pàcc bu njëkk bi. mooy ñi nga xam ne dañuy manifester pour la libération de Sonko. am ñoo xam ne dañuy manifeste parce que dañoo sësoon. c'est-à-dire dañoo bafoué. seen seen seen seen dañu dañoo ses dañoo bafoué seen c'est-à-dire la démocratie sénégalaise est en est en c'est-à-dire ça ne mm-hmm. ñoom ñu génn pour xeex ci loolu. Mm-hmm. am ñoo xam ne dañoo génn juste. parce que lii rek ma yóbbaale. bu ñu demee bay yàqal jàmbur yi tamit loolu bokk na si démocratie wala. la démocratie euh, soo xoolee. Mm-hmm. waxul dara ci nga dem ci bitigu jàmbur dajji ko. ça c'est pas être démocrate un pays euh, quelqu'un un pays démocrate ne marche pas comme sax mhm. il dit non à la violence non à l'atteinte publique mhm. yow doo doo jël biti loolu sàcc la mooy parti dernière partie bi ma la doon wax mhm. mooy ñi nga xam ne dañuy manifester te xamuñu li ñuy manifester xamuñu sax euh, manifestation bi lan moo tax ñu koy def mais man naa dem manifester ji pour mën a sàcc pour mën a jël dara. Mhm. parce que nit ñaa ngi sàcc. mbir mi moo jéggi dayoo rek tollu foofu mbir mi moo dem ba jéggi dayoo tollu mais bu jéggi dayoo nag. <laughs> am na ñoo xam ne vraiment ils sont la pour mën a régulariser loolu noonu. Mhm, mhm, bu fekkee ni c'est le président Macky Sall qui doit faire le dernier acte humaniste pour ñoom ñu génn ci impasse bii nii. naka def s'il s'agit de faire une euh, comment dirais-je euh, faire sortir l'armée ça sera l'armée su fekkee ne moom day démissionné qu'il démissionne su fekkee c'est la libération de Sonko ci va sauver bi mu libérer Sonko et que aussi euh, bu libérer Sonko qu'il accepte d'être libéré na nangu ñu libérer ko parce que boo génnee ci biti li nga mën a lijjante mënoo toog prison lijjante ko fa parce que déjà boo génnee su fekkee ne moom mooy tax euh, manifestation yi arrêté bu génnee manifestation yi dina arrêté li muy dox yëpp dina ko dox ci jàmm ak salaam. Mhm. benn doomu aadama benn doomu réew yi dootul ñàkk bakkanam ci ci ci ci manifestation yi. Mhm. ci ay woote yu kenn xam. Mhm. vraiment ñun ñoo ngi ñaan jeunes yi daal. waaw vraiment jeunes yi. ñoom ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax ci li ñuy def. nekkul sàcc bi ñuy sàcc moo leen di tere suur moo leen di tax a suur wala mooy tax ñu avancé wala mooy tax. Euh, dëkk bi jëm kanam parce que déjà ñoom ñoo dëkk ci dëkk bi. politiciens yi ngay gis yëpp dëkk bu demee ba doxatu mën nañ jëlee fii seen njaboot dem feneen. foo xam ne vraiment mën nañ fa am jàmm ak salaam. ku fiy des baadoola yi mel ni man. amuñu tous te yàq nañ suñu dëkk ñoo fiy def di des di fi defaraat. Mhm. donc il faut que ñu bàyyi xel ci loolu noonu. il faut que jeunes yi bàyyi xel xam ne. fii nii suñu réew la kat li ñu bëgg rek moo fi am ñun ñoo ko mën a doxal ñun ñoo ko mën a yàq léegi nag euh, suba la le 8 mars lu am solo ñu jagle leen ko jigéen ñi mais 8 mars bii de dina euh, wute torop ak 8 mars yi daan am voilà parce que jigéen ñi lañ ko jagleeloon mais 8 mars bii ni ñu koy ah vraiment nañu ci dem dem ak ak ak ak kii rek vraiment mu doon lu lu hmm. waaw ci côté boobu dama doon ñaan leen benn appel bu moo ci lancé. Hmm. waaw ci ñiy dugg di laal magasin jàmbur yi. Hmm. nanu xam ni Auchan benn tur la nii rek waaye Sénégal yi ñoo fay liggéeyee. te ay doomu Sénégal rek ñoo fay doo fa dugg ba gis fa tubaab. nanu bàyyi yàq boobu ñuy yàq. nanu bàyyi jël boobu ñuy jël. nekkul loo xam ne mooy tax nit ki am dafa doonoo fu mu doon li ñu fi yàq. dañoo te danoo yokk maanaam chômage bi. ndax ñooñu ku ku nekk fa nga daan xëy la nga la nga la nga fa daan fekk doon ñëpp lépp jël nañ ko. te ñëpp ko jël tamit nañu jàpp ni du leen jariñ dara. quelques jours am na ñoo xam sax jeexal nan lañ fa jëlee. kon nanu bàyyi yenn yenn détails yi. di créer ay nit ñoo xam ni dañuy wax nervi la waaye loolu ñooñu ñooy ay nervi dem jëlee fu jàmbur lekk alalu jàmbur dugg ci magasin jàmbur di ko jël loolu day ma am benn day dem ba benn instant sax nguur gi day dem ba benn instant ñoom mun nañu wax a wax ba kenn dootul wax ci problème problème mu sàcc si la wax ñoom loolu day ful suñu marche bi ñuy marche war ko gagné. nañu génn nañu marche man marche dama cee ànd waaye sans violence. gis nga Macky Sall dafa wax wax boobu mu wax rek ne lii du problème problème bi dafa nekk problème bu suufee. bu benn bakkan deewee rek suufeetu. waxatuma laaj fu mu toll ñu ngi ci. neuf mois wala dix mois mu ne moo laqatu ci ginnaaw. mais Macky kenn mënu ko loolu nit du ko dindi. Hmm. Macky Sall lii bataille politique la. Hmm. lii bu fekkoon bataille boo xam ni la bataille comme yëf yi Macky Sall daal yu yu mu affronté lépp ba mu fi toogee lépp ba mu fi toogee ba tey bataille kese la. amul lenn loo xam ne da wax ni lii kat nit moo ko def da nga ko tooñ wala lii wala laa na nga yóbbu si juste amul. pour ma féelu ko ci li ma wax noonu. loolu daal laa laa amoon pour ma féelu ko ci. waaw boo xoolee euh, parcours am. c'est-à-dire ñi nga xam ne. ñu tënk ko rek daanaka. voilà temps li ci des bëreetul. li nga xam ne moom moom la jot a doxal ba fii nii. Mhm. c'est-à-dire daa am action yoo xam ne day répété mhm. ci ay intervalle de temps yoo xam ne dañoo bokk. ñu jóge ci Karim jaar ci xalifa yegg si ci Sonko mais est-ce que ñun la population aussi suñu bàyyee loolu noonu est-ce que on est démocrate suñu réew si est-ce que nañ ñun nañ ñu mën a wax ni ce Sénégal là est un pays vraiment démocrate mais non parce que boo defee première fois mu jàll deuxième fois mu jàll e la population est là pour ñuy xool loolu noonu muy jàll nga def ko troisième fois mu jàll mais nous sommes des moo tax ñu bañ bii il faut aussi ñuy teg suñuy tànk fenn foo xam ne vraiment day wane ne ñun aussi on est là pour surveiller mooy li ma la doon wax sànq la citoyenneté dañuy dugg impliqué wu sur la gestion de notre pays xam li ñuy def te di ko doxale lépp nag ñu teg ko ci yoon parce que lépp lu loo xam ne amul yoon rek vraiment aboutissement ba fin ba du neex kenn voilà loolu laa amul ma ciy doole loolu la ñu ngi leen di jaajëfal euh, di leen ñaanal jàmm di leen jaajëfal bu baax a baax si temps bi ngeen bàyyi ñëw toog fii eh, di wax ñun ci kaddu askan bi defe naa li ngeen fi wax yëpp rafet na ñuy lancer appel yi ndaw ñi genn góor góor góorgóorlu surtout xale yu ndaw a ndaw yi nga xam ne li ñuy def xamuñ ci dara voilà waaw li ñuy def xamuñ ci dara eh, seen waajur yi surtout nekk ay responsable jéem leen a téye bu dee ñi nga xam ne xam nañ li ñuy def ñu xam niñ koy defee ci manière boo xam ne rafet na parce que policier boo fi xaañ rek sa frère la policier bu jël lacrymogène tamit dóor ko nit sa frère nga ko dóor déjà gis nañ gaañu gaañu yi yàqu yàqu yi euh, ñi ciy dee vraiment euh, affaire yu dem na ba dépassé mm-hmm. et ñuy ñaan rek homme politique yi tamit vraiment ñuy xool li ñu xaw a dimbali tuuti ndax lépp si ñoom lay jóge mm-hmm. waaw ñu leen di ñaan rek ma mag yi Sall son excellence ak Ousmane monsieur Ousmane Sonko Euh, ñu ngi leen di ñaan tamit ñu xaw a oyofal affaire bi ku ci nekk bañ utiliser sa force parce que bu dee da am baat ñu lay déglu daa xam daa am nooy doxe ndaw ñi fi mu toll nii ñoom ñëpp euh, ñu ngi bëgg a rey seen bopp si mi te jaru ko waaw bu ñu sañoon daal ñu xool nu ñu régler affaire bi loo xam ne daal moo gën si ñun gën ci Sénégal gën ci dossier bi ñu doxalee ko noonu. Euh, ndax affaire bi jeex si jàmm ndax vraiment li fi xew kenn rafetluwu ko kenn rafetluwu ko euh, ñu jaajëfal ñëpp di ziar ñëpp tamit euh, yal na ñu yàlla dimbal rek affaire bi jeex ak jàmm ñu fi jot a dee mu yem fii ñu fi jot a gaañu mu yem fii waaw loolu daal lañ amoon lu ñuy wax si kaddu askan bi ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal réew mi yëpp di leen jaajëfal Bienvenue sur Salam Vision.